woowu leen pour programme da leen di woo parce que moom dafa tiit def na njombe yaakaar na ni que yoon day dal ci kaw mu def ko ñun ñoo ko gën a doon gor parce que magistraa yi muy saaga man démb man ak samay avocat ba duggee ci tribunal bi gis beneen magistrat waxuñu dañoo nangu ni fii yoon lañ fi wax saagawuñ kenn donte mënoon nañoo wax parce que nag ñoo mais kenn déggul parce que dañu jox cër suñu yoon ay avocat lépp lu ñu def dañ leen di jox cër ba ca war ci beneen dossier bu maître El Hadj Diouf bii nekk am na leneen déggu leen kenn wax parce que nangu nañ xam nañ ni ko ordre des avocats ils sont autonomes rappel euh, renvoi bi gën a gudd bi mu am ci suñu procès un mois ordre des avocats moo ñëw wax ak juge bi ci affaire boo xam ne reteniroon nañ ko ba pare ñu nangu kenn dégguñu ñu wax parce que dañoo respecté kuréel yi téye réew mi wàññi leen wàññi suñu réew la wàññi leen doyadil suñu réew la euh, gàkkal leen gàkkal suñu bopp mais moom boppam rek moom boppam rek moom bu juge bi àttee juge bi baaxul mais loolu nag day jeex te bu nekk dina rëccu de jeexul de waaw bi am na deuxième mi parce que li ñuy wax lépp ay wax yu dul dëgg la dégg naa leen ñi naan non Mame Mbaye li muy warante mooy police ak gen police a ko jàpp gendarmerie jàpp ko rapport ba ci deuxième mi-temps bi donte amatul droit man may naa la droit boo indee rapport bu dul sax bu IGF boo indi bu wax ni que man def naa lu dul yoon sàcc naa alalu askan ma dem ci kaso bi yow ñemee woo wax loolu ca boo ma ko waxee man man ma lu la yóbbu yow wax dëgg dafa jot ci réew mi waxante dëgg dafa jot ci réew mi naxante ak naafeq ak ragal dafa war a jóg ci réew mi benn nit mën na toog li mu def ci àddunaam yépp ci ay fen la ko sampe yow laay njëkk a jël seete assemblée nationale ba ngeen nekkoon plus for reste la fa tuddee wax ji di tax yéen ñii ngeen xam ni actualité moo leen intéressé ak peut-être événement ak lu luy indi buzz li mu njëkk a def mooy wax ni que député du fay impôt muy ay feni kese képp kuy député xam ni ay fen la Sénégal yëpp xam ne ay fen la mais nit ñi ñenn ko wax ni que lii dafa ay fen la ñenn ñi ragal ni que dina lii da leen ci dal lii ay fen la mais foofu la commencé ci ay fen la commencé ascension Ousmane Sonko ça a commencé par le mensonge et ça va terminer par le mensonge déclaration bi ñu njëkk a def bi ko nit ñi naan député bii kan la leneen la leneen la déclaration boobu mooy fii assemblée ñun moom ma nga fa inspecteur des impôts la mu ni député yi duñ fay impôt réew mi yëpp xam ne du dëgg mu jóge fa daan ni député day leen jox dix millions mu jóge fa jiiñ baayu jàmburu quatre-vingt-quatorze milliards mu jóge fa dem négocier pour nangu donc moom addinaam lépp ci ay fen da ko yóbbu tey alhamdulilah man établir naa ci dëkk ak këyitu tribunal ni ka fenkat la parce que yéen ñëpp seede ngeen mu ni rapport moo boobu moom mu ni mi ngi ci loxo mi ngi woon sax ci téléphone am ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi ni ka jàngul wala bu jàngee tamit xamul bu xamulee tamit nit ku bon la parce que nit ku bon mooy xam dëgg xam li mën a nekk di wax safaan wax li mu njëkkoon wax moo gën a yanu ci ku jàng rapport IGE moo ma jàpp moo gën a yanu ci ku jàng parce que IGE mën na def rapport jàpp mais IGF mënuma jàpp parce que bokkuma ci champ d'activité te moom def na quinze ans impôt et domaine moom nee na instance moom nee ministère des finances la bokkoon kon mënta bañ a xam loolu mënta bañ a xam loolu loolu di indi beneen firnde pour wax ak ñi nga xam ni dañ koy topp te naan xaw ma mu sell mi te yàlla rek tax donte mën nañ ko def te bon foi tey ci kàttanu yàlla am nañ firnde ne ko Ousmane Sonko du wax ko du dëgg tribunal àtte na nee du wax ko du diine ji tax bi taxu ko ak bi tax ñenn ñi yaakaar ko ku ñu mas daan ci ñàkk wax dëgg ci kuréel lu mel ni tribunal matatoo seede ku matul seede ci lislaam matoo njiit ku matul njiit doo laaj réew mi kon donc yéen ñi koy défendre te naan yàlla moo tax waxuma nag ñi am laxdar yu ak risaala rek du werante borom ci jàng laa wax dem leen diine ku fen ñu établir ko kuréel dëggal ni ñu kii wax na dara ca fen la matatoo seede mënatoo nekk témoin ci dara diine dàq na ni yow mën ngaa seede dara tey Ousmane Sonko bu dee ci diine lañ ko teg matatul seede ku matul seede doo jiite ku mënta jiite doo jiite réew mi moom bu jàppee ni que garde na éligi éligibilité diine dàq na ni que mën naa jiite bu jàppee ni que tuumaal bàyyi jàmburu jëkkëru jàmburu yaay jàmburu ba di dàqante ci ay kër di football ak naan ay dem naag demuma woo ay nit ba ay nit gaañu ci bu jàppee ni que rëcc na ci garde wul ngaram donc tey Ousmane Sonko fenkat la Sonko amatul ngor Ousmane Sonko amatul dignité foofu lañ tollu tey loolu moo tax ma sant yàlla parce que man dimbali naa sama njaboot ba setal sama der dimbali naa sama soxna samay xarit samay àndandoo samay rak ñi ma àndal ñi ma wóolu bañ xam ne que wax ji amul waaye tamit dimbali naa sama réew bañ gis ne que kii ñu yaakaar du waxkatu dëgg ak ku mën a far ci moom ak ku mën a bokk ci moom ak wàll boo bokk ci moom tey Ousmane Sonko waxul dëgg léegi nag dinaa tënk tuuti jox avocat bu fekkee ni am ngeen lu ngeen di laaj damay fàttali ni am na yu bari ñoo xam ni ci ci lu baax ak bëgg jàmm dañoo yaakaar ni que waroon nañ maa woo doon ay pour naan ma retirer plainte retirer lii retirer leneen wallaahi du ñàkk kersa du bëgg a du soxor amul benn problème personnel entre man moom dafa di damaa war a sàmm dafa di ngor ngor moo gën a foor bakkan mais ñu nekk apparent kontaan ak teewoo réew nekk avant diine di ci ngor lañ daan àtteewoo te ku jàng xam ni que bari na lu diine nangu ca ngor nanguwu donc ngor moo ëpp mu gën a ndaw Ousmane Sonko nag deseetu ko que ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg toroxal mu woo ay doomu jàmbur lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni que gàtt na éligibilité léegi ñi ko toppoon ñi ko defaan ci loolu ñoom yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte moo ëpp jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi-temps bi moo tax ma ni jeexu beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis ñu yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw di ñëw ñi ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ne ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce moom dafa am ay dafa am ay yu ñeneen ñi am ma ne ko man bi may xale wata xale looy def ci kanamam yaa ko def te di fàttaliku ni xale ngay yar man bi may am juróom benni at 1982 loo xam ni tey ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàtte na fàttalu fàttalikuwuma ko 82 dañu jàpp sama papa aéroport parce que dirigeant grève la woon temps yooyu ku sant Seck eh, kii kii Seck ci dëkk eh, eh, non pa kii sant Seck après ministre moo nekkoon moo nekkoon ministre des télécommunications et des transports ñu jàpp sam papa parce que dafa bokk ci ñu doon jiite grève temps yooyu boo déggee ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say nopp ñu wax journal nekk jàpp nañ Mbaye Niang syndicaliste à l'aéroport bi ngi ca mu doon événement bu rëy Jurbel nit ñi di ko wax dama xamee sama maam la wax sama papa ca kaso ba xam ne àddina amul dara lu gën dëkk àdduna àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu te dafa dem fekk ko après la comprendre ni que sama papa moom problème yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am sama maam egg ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de na fa dee ñi la wóolu ba indil fi bu ñu la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yar man loolu lañ ma yare lu dul dëkk rek du leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis biñ ciy wax mais defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk vingt neuf milliards lañ laaj dégg dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma wax ku yàlla wax ni dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lor donc